Cheikh Gueye responsable des jeunes de la commune de Thiès Nord membre di comité de pilotage. ndaw parti mi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci région de Thiès muy commune bu Thiès ñetti commune ci Thiès yi ak département bi ak département Mbour ak bu Tivaouane ñoo am initiative bu taxawal benn forum régional objectif bi nag mooy dajale ndaw ñi. waxtaan ak ñoom mais aussi yokku leen ay ay ay jumtukaay yoo xam moo leen di mën a accompagner pour ñu dem sur le terrain. si loolu laaj na tey ñu mën a woo suñuy kilifa parti suñuy frère et c'est l'occasion aussi ñuy gërëm suñu frère bi nga xam ne mooy le frère secretaire général national à la jeunesse notre frère Mori Gueye et notre sœur Penda Ndaw qui ont bien voulu répondre à notre invitation aussi suñu frère Yankhoba Diattara vice-président du parti ñëw teewal fi le président Idrissa Seck lépp mooy ngir rek jox bis bi importance bi mu laaj mooy tey def nañ ay exposition euh, wax ne ndaw ñi jaar-jaaru président Idrissa Seck li ëpp solo ci jaar-jaaram euh, c'est c'est ses déclarations le plus écoutées ak aussi sa déclaration de politique générale bi nga xam tey ji rien que rek mën na développer Sénégal ñu ne nag tey war nañu mën a toog waxtaan mais aussi joxoñ leen li nga xam ne mooy joxoñu le président Idrissa Seck ñu xam ni mbir mi lenn la mooy nan takku doon benn jàppante te xam ni élection yi yàggatul fexe ba nga xam ne kenn duñu diviser organiser wu wàcc ci terrain bi ngir dem dem fexe ba wut ay militants yoo xam ne tey jii dinañ gëm ni dañu wàccal président Idriss Seck au soir des élections du février 2019 incha allah. un la boo xam ne suñu frère secrétaire général national Mori Gueye moom bi mu ñëwee président Idriss Seck tabb ndaw ñi ci secrétariat national parti bi moo ko proposé woon ñu validé ko je pense que boobaa ak léegi ñu ngi ànd. di ko doxal ci réew mi dugg nañ ci ay département dem nañ ci ay ay localité ay région dem nañ Diourbel dem nañ Touba dem nañ Mbacké Saint-Louis une partie aussi ci Louga dem nañ Linguère yooyu yëpp li ko waral mooy fexe ba projet bi ñëpp kuy nekk Sénégal am yéene jàppale président Idriss Seck nga adhéré ci fexe ba aussi li nga xam ne moom lañ sumb moom nga xam ne loi la bu ñu Macky Sall imposé jàpp ni mën na tax mu wàññi suñu doole par contre ñu gis ni tey ji nit ñi pare nañ pour engagé wu pour jël fiche parrainé président Idrissa Seck je pense que sax am na lu ñu dal Touba bi ñu ñëwee ci marché Ocass suñu frères yi dañu ñëw agsi di wax ak nit wax ci président Idrissa ñu ne ndax indaale ngeen fiche parrainage je pense que loolu engagement gën a mënu ko mënu ko weesu te je pense que foofu aussi avancé nañ ci trop dégg nañ sax le ministre Aly Ngouille Ndiaye xam na ni damee nañ leen pion ci par rapport ak parrainage bi muy profité wax ni way liste yi yooyu c'est pas officiel fi a génte génneeguñ ko mu bu officiel ak bu ñëw bu mënti ñun ñun pare nañ pour lépp pour dara bañ ñoo bett incha ah, maa ngi tudd Penda Ndaw je euh, maa ngi nekk secretaire national à la jeunesse féminine du parti Rewmi. jeunes Thiès yi ñoo ñu invité woon ci seen forum bi ñuy tuddee forum régional des jeunes de Thiès mu nekk benn initiative boo xamante ni c'est une initiative d'envergure. parce que lii jeunes yëpp ci Sénégal bu ñu ko organisé woon yaakaar naa ne dinañu gën a xam kan mooy suñu leader le président sa sec dinañu gën a xam aussi la mission bi ñuy xaar en tant que ndaw et aussi en tant que jigéen war a suñu choix ci le président sa Seck ñun ñi nekk fii nag bokk nañu xam nañu parce que dañu lancé le slogan bokk naa ñun bokk nañu xam nañu mais ki nga xamante ni mu ngi ci biti bokkagul xamagul ñun suñu mission moo ñu dem ci moom fexe ba mu bokk fexe ba mu xam te nag am nañ leader bi nga xam ne am na dayo bi am nañ appareil bi nga xamante ni mën nañu permettre ñu génn ci élection yi dès le premier donc ñun suñu mission actuellement moo ñu fexe dem ci Sénégalais yi fexe ba ñu xam kan mooy le président Idrissa Seck xamal leen programme bi nga xamante ni am na ko te loolu lépp organisation moo ñu ci yóbbee ñu ngi ci organisation ñu ngi ci animation parce que lii rek tey firnde la ci ne ñun tëdduñu di nelaw ñu ngi sur le terrain ñu ngi def euh, localité yu bari chaque week-end dañu def benn département dem rencontrer ji jeunes yi pour ñu installer seen ay bureau pour ñu gën a mobiliser wu pour ñu gën a redynamiser wu te loolu lépp ngir rek nattal la président Idrissa Seck un million d'électeurs yi nga xamante ni day permettre su ñu defee suñu conférence nationale ba pare Macky Sall bu fekkee am na xel day jug rek jël ay bagages am rek dem yoonam xam na ñu ngi ci kawam te duñu dem ak moom ba 17 heures te loolu lépp liggéey la ñu ngi ci wàccee si ñu ngi organisé au niveau de Dakar les cadres ñu ngi organisé seen séminaire à Dalifort dimanche ñu ngi organisé seen ay loolu lépp ay initiative loo xamante ni c'est des jeunes c'est des cadres c'est des intellectuels koy organisé si parti bi ngir ndamu le président Idrissa Seck fexe nag ba population yi approprié wu suñu candidat approprié wu suñu programme loolu moo ñu tax a jóg te ñu ngi ciy liggéey. li tax président Idrissa Seck tànn nommé un secrétaire national à la jeunesse féminine te mosu ko def am na conscience ci ñun ñi nga xamante ñooy ndaw ñi ci ñun ñoo xam ne ñooy jigéen ñi que ne waruñu des ginnaaw ñu ñuy naxee ay t-shirt di ñu naxee ay tàccu parce que. nous valons plus que ça parce que mu ngi wax ne li koy yóbbu pale borom musóor yi la te borom musóor yi ce n'est rien dootu ko ñun ñii parce que la jeunesse c'est le fer de lance du parti te ñii nii pare nañu pour que fu góor ñi teg seen tànk rek fu ko raw ñu teg fa seen tànk te du doon ay tàccu te du doon ay way day nekk loo xamante ni fu ñu joxee idée ñu joxe idée fu ñu tegee tànk ñu teg tànk d'ailleurs ñu ngi woon sur le terrain ñii ñëpp dañuy wàcc sur le terrain dañuy dem ba Fuuta dañuy dem ba ñu ngi waajal dem Sédhiou actuellement ni dinañ fa dem plus d'une semaine ou plus te ñii la ñu àndal donc ñun nekkuñu rek jeunesse féminine boo xam ne amuñu conscience. dama ñëwoon rek tey ci turu président Idrissa Seck. indi euh, kaddu direction parti bi muy kaddu yaakaar ak kàddu ñaan ak kaddu encouragement suñu jeunesse régionale bi nga xam ni moo jël idée bu rafet bi organiser forum régional pour waxtaan seen biir pour nan la jeunes yi di mën a doxee taxaw. ci élection ñu jëm pour mu mën a assurer le président Idrissa Seck la victoire en 2019 muy initiative bu rafet mais également activité boo xam ne ñun ñëpp war nañ ci jàpp war nañ ci ñëw participer pour mu réussir ndax xale yi li ñu bëgg mooy ñun ñëpp li ñu bëgg te ñoom ñu ngi ciy liggéey au quotidien kon dinañ ñëw ni leen waaw góor ne leen jërëjëf jaajëfal leen gën leen a motiver ni leen aussi par rapport ak Sénégal ni muy doxee ak euh, configuration électorale Sénégal jeunesse bi bañ a xeeb seen bopp ni xam ni ñoom ñoo yor clé victoire bi ëllëg. su fekkente ni président Macky Sall pare na def lépp pour am deuxième mandat cest à que moom pare na def ba def lu defuwul mais face à cela la jeunesse son devoir mooy un devoir de résistance d'engagement mais également de sécurisation du de de de de de nu mu sa de sa voix cest que baatam baatu askan wi. te jeunesse bi la ñuy xaar sax mu défendre baatu askan wi message boobu lañ leen di wax ñu préparer wu organiser wu pour faire face au forfait bi nga xam ne le régime actuel da koy def ndax le régime actuel xam nañ ni ñoom perte nañ pouvoir bi ñoom sax soo leen déggee ñu ni ñoom dañuy wut pexe xam nga kuy wut pexe c'est-à-dire que amatoo amatoo pexe amatoo yaakaar or ñoom dañu waroon ni kay bilan am nañ bilan dañuy présenter dem dañuy gaañ et tout cela mais ñoom ils sont conscients qu'ils ont perdu le pouvoir que face aux crises yi nga xam ne ñoo am ci réew mi mais xam nañ ni sénégalais yi suñ doon nelaw sax yeewu nañu pour xam ni kii moom du kii mooy jëmal Sénégal kanam déjà jeunesse bi la le chômage des jeunes mm-hmm. les meurtres au niveau du mouvement étudiant les élèves crise bi xoolal élèves bi ñu rey fii ñu ñu dóor ci ay lan te pourtant gouvernement bay tooñ ba pare violenté la rey ñi et tout cela la jeunesse sénégalaise et consciente de tous la te xam nañ ni sanction mooy ci topp mm-hmm. beneen bi programme yi ñu tegoon tey pour dimbali jeunesse bi détourné nañ ko tey gis ngeen bu ak le problème de Mame Mbaye Niang boobu ba léegi amul benn mesure sax bu ci Macky Sall jël pour montrer la voie daan ni jeunesse bi bu leen découragé moo moo ministre à fauté je les sanctionné wala ceci cela cela veut dire il a cautionné le détournement mm-hmm. te loolu jeunesse la jeunesse sénégalaise est consciente de ça te dina ko régler ak Macky Sall donc beneen mais tey immigration clandestine reprendre na ñëpp gis nañ les départs ñu fii de départs fi commencé war am mm-hmm. plus kon compté nañ ko au niveau de Kayar c'est-à-dire kon ana yaakaar bi et c'est pire à pays donc kon nga xam ne rek tey crise bi nga xam ne Sénégal lañ ciy dund defe naa ni Macky Sall xam na ni fi ñu mu jëm ak sénégalais yi moom vraiment ce la chute te moom ay pexe lay wut mais sénégalais yi pare nañu xam naa ni déterminé wu nañ pour pare ak moom incha allah en 2019 te loolu jeunesse bi am na rôle bu mag bu ñu ciy joué donc maa ngi leen ci encouragé di leen ci félicité.